dikkati ci yéenekaay yi ñu koy dooree ak l'observateur ci président Macky yokk gi mu yokk dooleem ci projet bu nar jaar ci assemblée nationale moom président Macky mu jàpp ne fi mu teg ndëgër laaye moom mooy ca tujitu primature ak coppite bi fiy dindi monsieur censure vox populi dañu xamal ne président Macky Sall joxoñ na fa mu nguur gi jaar fi nguur gu mu mu doxal résultat ak son naka noonu ngir liggéey Sénégal te gën

liggéey ngir ay résultats waaye tamit ngir ak yëgoo ministre yu bari démb moo doonoon seen jël toog ci table conseil des ministres les mel ni ku naan ko boo wëree table ji di fa daj ñeneen ci ñi nga xam ne dañ cee boole génn tëre gi am fa woon nag ñu ne ñu wër ca table conseil des ministres démb benn ministre d'état la président la tribune naan ko président Macky Sall def na ko mode fast track gaaw te barxa le soleil xëy nu ci ab nekkee ca boobale kayit ndax mën nañ caa lu bari gouvernement bu bees bi nag doolu ñu ca bëgg rek waaye ñu ca mérité lése koo jàpp ne am na ak jéego gu rëy gu ca xeex ci biir APR ñemer la gis mooy ña fay ñëw teg ci dindi poste premier ministre ci Sénégal yéenekaay bi gis ne président Macky Sall ma ngay wëraw yoon ndax coppite gi da koy jaarale Assemblée nationale wala ci référendum ñu wax ci xibaar yi yéenekaay yi na ju yeewoo démb ci université suppali nañu mbootaayu jàngalekati daara yu kabe yi SAES ak UGB ñu doon sàkk ñu tas kuréel gi coordination des étudiants bu Saint-Louis le quotidien nañu ñàkk bëgg sa réew ak fonk ko dëgg la yi doxalee Sud Quotidien di ñu xamal ne jàngalekat yi yemuñ ca di ko ñaalu rek ndax ñoom waa SAES dëgg nañu ñetti fani grève ñu jeexalee ko ak génn àdduna kii di Momar Seyni Ndiaye di jàngalekat ci wàllu tasum xibaar laatut bi mel ni kuy tàggatook moom naan ko ñàkk nañu professeur